wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi Fafa TV
alhamdulillahi rabbil aalamiin xamdan kasiiran tayyiban mubaarakan fiihi naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastagfiruhu wa nacuudu bihi min shuruuri anfusinaa wa sayyi'aati acmaalinaa ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين نجي سنت يالله سبحانه وتعالى ديكو غرم مومي يو سنت أك غرم ci bépp anam di ko dimbale ko di ko jéggalu sunuy bàkkaar di ko ñaan mu musal ci sunuy ay bakkan ak ci sunuy ñaawtee fi jëf di seede ne amul lenn loo xam ne dees na ko jaamu jaamu nga di dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala di seede ne sayiduna muhammadin ibni abdillah moom ab jaamam la ab yonentam la di ñaan yàlla subhanahu wa taala julli gi muy julli ci moom te santuñu ko yàlla na ko sunu borom subhaanahu wa taala di dotti ci kawam moom ak i waa këram ak i àndandoom gannaaw loolu mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu toogaay bu diis a ngi nii bu jafeñ wax dëgg yàlla doon ñëw di jël si dara far kala ko waroon a jox ne la toogal joxe loolu diis na lool waaye nag yal na yàlla subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq ci lépp te nangul ñu ko te barkeelal ñu ko te jéggal ñu li ñu nangu ndax dama jàpp ne dama ko waroon a bañ rekk ba tëdd ci suuf waaye nag day am fu mu toll loo xam ne dafay nuru ne teraanga la nga mel ni sunu mbokk mi daf ma jàppe ab gan gan nag dee su ko teral mu di ko bañ te it teraanga la su fekkee ne yàlla defal na borom tawfiq ba mu wax lu jëriñ defal ñiy déglu tawfiq ba ñu jëriñoo ko yal nañ ko sunu borom subhanahu wa taala defal gannaaw loolu xam naa ni majlis bi kon dañu ciy waxtaane li nga xam ne moom moo ko tax a jóg muy daje ci néeg ci néegu yàlla yi tiim téere yàlla bi subhanahu wa taala di ko jàng di ko jàngalante rawatina nag di jéem a gëstu maanaa yi ndax tafsir moom loolu lañ ci am mooy xam li yàlla subhanahu wa taala di jëmale ci ñun ci téereem bii ci xam-xam bi nga xam ne daf ciy xamale boppam ñu war ko ci xam mu gën a foor ci mboolem xam-xam yi ba boo toppee li ñuy jël di ko yëkkati ci kaw al ci alquran ci kaw leneen ci biir alquran lépp boo ko seetloo ci maana booba lay wax maanaa boobu lay jàngale moo ci ne mooy xamale yàlla looloo ci gën a foor aaya bi gën a foor ci alquran xam ngeen ne mooy ayatul kursi moo ci gën a màgg nu ñuy jullee nekku ci nu ñuy wooree nekku ci nu ñuy nattee azaka nekku ci bari na ci yi nekk ci alquran ti tudd axwaalu naafiq yéeg yéeféer yéeg jullit yéeg yooyu yépp néew ci li ci ne mooy li gën a tedd ci xam-xam fukki jumla yoo xam ne benn bu ci ne day xamale ci yàlla subhanahu wa taala loo xam ne boo ko jéggee naan yaa ngi xame ji yàlla sànku nga xam-xam bu foor la waaye noonu mu fooree noonu la ci seytaane fële ay nit këf leen woo leen ci unwaan boobu nga xam ne mooy xam yàlla moo gën a foor daal leen ci sànni fa gën a sori xam yàlla subhanahu wa taala dan nañ ci yàlla musal boo ñëwee ci ixlaas mi nga xam ne bennam dafay tolloog ceeru alquran boroom xam-xam yi ne jubluwuñ ci ne ñetti ixlaas comme ñu ko bari di waxee mooy benn kaamil ci li ma jot a gëstu topp ko ci alfaad yi nga xam ne moom la xadis bi ñëwee ak i riwaayaatam ba léegi tombeegu ma ci xadis bu wér bu wax ne ñetti qul huwa mooy genn kaamil mais calculu ay nit laa koy déggee rek waaw comme benn qul huwa day tolloog ñetteelu kaamil day tolloog ceer bi ñu ne kon ñett yi day mat kaamil bi waaye li ma dégg boroom xam-xam yi muhaqiquun yi firee ko benn qul huwa day tolloog ceeru kaamil bi mooy ne qul huwa allahu ahad bi nga xamee ni moom day wax ci boor bi ñu wax muy xamale yàlla subhanahu wa taala bi nga xamee ni dañoo laaj sax yonent bi yow yàlla bi ngay jaamu moom lan la mooy kan mooy lan qul huwa wàcc pour tontu loolu nga xam ni masala yi yu bari ci pratique yi nekku ci te alquran di ñetti xam-xam benn bi di li lay xamal yàlla moo ci njëkk moo gën a foor beneen bi di li lay xamal ndigalam ak i tereem muy axkaam yi lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ ñetteel bi di la xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo tënku ci ndigal yi bàyyi tere yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def tere yi bàyyi ndigal yi weddi yonent yi fan la yàlla jaar ak ñoom ci àdduna ñu mu ci jote jaar ak ñoom ñenn ñi ak fu mu nar a jëm ak ñoom alaaxira bu xul wallahu ahad ñëwee nag di xamale benn bi kon mooy benn ceeru alquran bi loolu bokk na ci maana yi nga xam ne tudd nañu ko muy maana boo xam ne bu am solo la waaye tekkiwul ne ñetti xul huwa mooy benn kaamil comme ni nga xamee ni suñu waxee ne nit bopp la ak jëmm ji di yaram bi ak membre yi muy cër yi ñett la du dëgg bopp ak jëmm ji nii ak membre yi est-ce que loolu mooy soo amee ñetti bopp da ngay am benn nit déedéet tekkiwul ne boo amee ñetti bopp da ngay am benn nit aywa su ko defee loolu tamit day wane ba léegi wàllu wu am solo woowu ci alquran ci xam yàlla subhanahu wa taala ni ko aaya yi nga xam ne moom ñoo ko làmboo ni ñu fooree ci biir alquran fatiha it boo ko xoolee làmboo na ci lu ama am solo di saar bi gën a màgg ci alquran kon daje ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ngir xamee ci xam-xam boobee xamee ci it ay atteem xamee ci it atte yi muy ndigal yeeg tere yi ndekete duut kii di jëfee di moytu kee di def lu ko neex rek après mu jeex waaye yàlla subhanahu wa taala am na fu mu jëm ak ñun ci diggante ndigal yi ak tere yi loolu nag misaalam ndax yàlla ay layam day mat daf ko indi ci li weesu di ñu ko won ci li ñuy dund tey mboolem téere yi dëppoo ak ñuy askanewoo ca téere yooya ni ñuy wuutee ci yoon ci ne nitu luut yi nitu aad yi nitu thamuud yi firawna asxaabu laykat yi ak ñooñu ñépp li leen alak mooy mooy ndigalu yàlla amul wuute daanaka yàlla dafa fitra nit ñi ci loolu sax bala ñuy ñëw di nangu si mbaa ñuy bañ loolu lépp téere bi di la ko xamal di la ci yee ba mu war a feeñ nag yow ci sa doxin ci ni ngay doxee ci kaw àdduna téere booba ma ne toog di ko jàng dafa bari ngëneel lool koo xam ne jotaay bii daf ma koy fàttali di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu di ñu ko fàttali ñaan yàlla mu ñu ci wommat di jëmale ñaan yàlla boole ñu ci tànneefam yi nga xam ne ñoom ñooy wër di wuti fa ñu koy ubbee di ko jàngale ñu di ko teewul invitation yàlla la ci kaw suuf du kune moo ci mën a bokk buur bu wootee ñi gën a néew ñoo ciy mën a bokk invito invitation yàlla la ci kaw suuf te gën naa rëy lu bare bare bare bari ci ay naafile yoo xam ne njëriñ ba daanaka ci sa bopp lay yam looy pratiquer la mu yam ci sa bopp lii gën na koo rëy ñëw na ci xadiis bu alimaam abu daawud solo ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nit ki xëy dem ca jàkka ja wala nit ki dem ca jàkka ja jàng fa benn aaya ci téere yàlla bi mooy toog jàng ko nii rek moo gën ci moom téeméeri rakaa mu jàng ko moo gën ci moom téeméeri rakaa yu muy jullil yàlla waaye nag dem xëy ci jàkka ja jàng benn masala bu ñu jëfee wala jëfee wuñu ko moo gën ci moom junney rakaa mooy kon li ngay toog jàng alquran pour jël nas bi jël yax bi te jéemuloo xam la ca nekk ci ay masala noonu la gëmee gënee sax ay naafilay julli waaye nag di jàng téere bi moo xam alquran la moo xam xadiit la di ci jëlee masala yoo xam ne da nga koy xamee sa diine loola moo gën junney rakaa te kenn ku ne ci ñun boo moytul boo amoon cawarte taxaw julli junney rakaa dafay jàpp ne am na ci lu ëpp li ñu am ci suñu jotaay bi fekk ne demeewul noona bokk na ci ngëneel yi nga xam ne moom moo ci ñëw xadis bu siw boobu nga xam ne moom it lu jar di bàyyi xel la di ko teg suñu kanamu bët yi di dox mu ñuy wammat ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أي ندون دجمك ci benn néeg ci néegu yàlla yi borom xam-xam yi wax nañ ne gën naa yaatu jàkk yi waaye jàkk yi ñoom ñoom ñooy awla wa axas moom dara du leen ci génne du mantuux ba du mafhum ba donte mafhum ba mën naa yaatu nag moom donte nekkul ci mantuux bi ba làmbaale yeneen béréb yu dul jàkk kon naka jàkk ne dajaloo ci benn néeg ci néegu yàlla yi ne na di jàng téere yàlla bi di ko jàngalante seen biir ne na lu dul yàlla wàcce ci ñoom sakina sakina di lu ama ama am solo sakina di lu ama ama ama am solo ndax moom du rekk jëmm melokaan bu nit ki di melo ko meloo mais sakina moom mbindeefu yàlla la à part ni seytaane nekkee mbindeefu yàlla à part bu wàccee ci sa kaw jaxasoog yow mu feeñ ci say jëf feeñ ci say yëngu feeñ ci say wax feeñ ci say xalaatin di la waswasa noonu la sakina nekkee mbindeefu yàlla malaaka sax mës nit ab ab jullit sax ab saxaabi mës na koo gis mës naa gis sax sakina muy dem nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne tilka sakina ci beneen riwaaya mu ne tilka al malaayika mooy saxaab yi ba doon jàng fas wi di yëngu ba nara kii doom ji far mu arrêté yonent bu mu xëyee ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko boo continué woon nit ñi dinañu xëy ndax bi mu paree bi mu siggee dafa gis luy jëm ci kaw asamaan yonent bi ne sakina la bal sax ñëw na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne sakina day wax ci làmmiñu omar moo tax am ci borom xam-xam ñu ne sakina malaaka la sax day wax ci làmmiñu omar moom bu fekkee day ànd ak nit ki kooka li ñu wax furut day jëfe ci mbiram ak xafla furut mooy jëf yu koy rëcc wala ay action yu koy rëcc lan lay rëcc ci moom mooy xel mi ak imaan bi xel mi mu war a jëriñoo te aql mooy luy ngalaab di téye loolooy aql ci arab mooy ngëm gi li bareem daf koy rëcc mu topp bànneexu bakkan bi topp seytaaneem sakina nag da lay dimbali ci loola am na koo xam ni moom li jaar ci xel mi pour mu wax ko am na lu ne ci moom lu koy jekkuloo mu téye ko jàll occasion boobu génn ci ak jàmm du ci am benn bàkkaar am koo xam ne loolu amu ko day jàll am koo xam ne li jaar ci xel mi ci bànneex boo xam ne mi ngi ci ñépp yàlla moo ko def ci nit am na lu ko ëpp doole lu nekk ci moom loo xam ne da koy téye jëmale ko waat ko feneen ci tudd yàlla ci xalaat yàlla ci fàttaliku yàlla ci def lu baax lu wuuteeg loola am koo xam ne loolu nekku fa furut wala tuti man agfalna qalbahu an dikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta mbiram noonu la koy rëccee rek sakina dafay dimbale nit ci loolu borom xam-xam yi dañuy wax sax ne nit waxuma la ñaari nit waaye kenn nit su amee seetlu mën na koo gis ci boppam ci jamono bi nga xam ne tuddam yàlla dafa bari xolam bi di dajaloo ci yàlla dafa bari bàyyi xel yàlla dafa bari di lekk biiram di def lu dagan muy jaxasoog nit ñu baax ñi dana am lu muy yëg ci boppam lu koy dimbale ci lu baax comme boppam rek lay mel bu demee ba ñàkk loolu moom kenn nit ki dugg ci yu mu warul dugg wax ci lu mu warul wax xool lu mu warul xool lekk lu mu warul lekk day yëg vide day mel ni am na lu ko doon gunge lu doon nekk ak moom loolu amatu ko bu delluwaatee yàlla dellu seeg moom moo tax sakina lu jara wut la nit bu toogee ci li ko yàlla sant bu mu foog ne rek li yéeféer bi mën a natt ci la mu fa jëlee nga xam ne jullit ak yéeféer yépp mën nañ ko natt bu mu foog ne loolu dong la fay am am na loo xam ne dañ koy bind ca kaw dëgg la jàng nga fi masala bi bu fi yéeg fi yéeféer toogoon it neex xel mën na fi jël masala bi ah wala wuute bi mu ne am na wuute kii lii mooy dalilam kii lii mooy dalilam munaqasha nañu lii mooy arrajax teg loolu mbir la moo xam ne ku ne mën na ko faa jëlee nit mën na faa mën na faa jóge it natt ko ne lii la waaye am na ci yoo xam ne yàlla moo ko séddale ci jotaay yi bokk na ci sakina moo tax nit ci ne ciy wut loola di ci wutaat li ci yàlla digge lépp da ciy wut xam masala yi xam aaya bi li muy firi gannaaw bi mu ko xamul woon xam sew-sew ya ca ne mais na xamaale bàyyi xel ne am na leneen loo xam ne saa yu demee ba defa ni mbir mi mi ngi yem ci lii rek ba loolu xëy na tuuti ci moom dematul ci jotaay yooyu am na leneen lu muy ñàkk nee na sakina mooy wàcc ci seen kaw yërmande muur leen yërmande ñëw muur leen malaaka yi wër leen malaaka yi wër leen moo tax dañuy nuru ñu wéet mais wéetuñu suñ ci dëggoo dina dem ba yàlla dindi ci ñun rëy boobu di nekk ci nit nga xam ne moo koy indil wéet bay wut ay gàngoor yu koy mottali loolu lépp li koy faral di indi mooy vide mooy vide bu ñu dara nax mooy vide gis koo xam ne kii leen di tafsiral li mu jàng jàngu ko fi mu jaar jaaru fa li mu mën a lijjanti lijjantiwu ko bu doon ñëw fii ay oto ñoo koy jiitu dem na ñoo xam ne dañ koy organiser sax na ñoo xam ne dañ koy organiser mos naa dégg benn waay bu ne benn boroom xam-xam ne ah kon ndekete moom amul staff waa ji mënul wax jumla bu jub mënul wax jumla bu jub ci arab man dama am staff eh eh ñun bala ñuy dem faw dañuy contacter oto yi war a ànd ak ñun ñépp da ko doon wax waxu itiraaf ndax ci aj la woon te aj léeg-léeg nit dina fa yóbbaale lu baree bari yëg ne lii dafa war a dañ da doon itiraaf waa jooju fi mu ne nii tey waxkat la woon waaye léegi déglukat la ci aj moomu la ko jëlee waxkat la woon bu ñeme waaye léegi déglukat la li muy déglu moo ëpp li muy wax ay boroom xam-xam yoo xam ne xamul woon ne sax ñu ngi ci réew mi xamul woon sax ñu ngi ci réew mi ndax la mu doon dund ak ñooñu la ñuy wax dafa sore yoo fi mu ne nii daanaka seeni xutba du ko rëcc seeni jàngale du ko rëcc seeni darsu du ko rëcc lii indi loola moom la toogaaykat ci jotaay yii li ci bari rawatina bu ci jaaree ba jàng moom du wét yàlla moo koy booleek lu koy wéttali du lu muy toog nag toujours naan man am naa lii wala am naa lii xamu ko sax ba muy tul waaye looloo nga koy défendre ci kanamam ak ci ginnaaw di ay muaqibaat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala défendre gi nag du ci luy jóg rek xisiyan lii di dal ci sa kaw waaye ba ci waswasa yi seytaane di indi yi ci baree bari du ànd ak ñoom seen teewaay du ànd seen teewaay ci nit ki ba ci néeg bi sax wax malaak nag ci nit ki ci jëmm jaamu yàlla bi yent bi salaa sam nee na néeg bi ñuy jàng alquran malaaka yi dañ fay wàcc seytaane yi di fa daw di ko gàddaay néeg bi ñu dul jàng alquran nee na seytaane yi dañ fay daw malaaka yi di fa wàcc naka nit ki moom ci boppam naka dënn bi nga xam ne moo koy def di ko wut di ko jéem a dégg di ci jëlee ay gëm-gëmam di ànd ak moom fu mën a toll ba defee kon malaaka yi wër leen ñooñu wéetuñu ku foog ne dañoo wéet wéetuñu yàlla di leen tudd foofa mu ne loolu di xéewal bi gën a màgg bi gën a rëy bi mu paree ci mbindee fi mu ñëw ci moom yàlla subhanahu wa taala ak i sifaatam yàlla di leen tudd ca ñooña nga xam ni ñoom ñoo fa ne dañuy dem nag muy gën a tumuranke di wut valeur yii di gën a manqué liy fàbbi nit ak di ko nax di ko këf di ko yóbbu di gën a bari di gën a fees waaye képp ku yàlla dimbale ba ngay doxee lii di ko bàyyi xel di ko toogaale mu lay yëkkati nga ciy def sa temps di ci def sa jot di ci def sa yitte di ko def ci diggante rawatina julleek moroom ak li ci yàlla subhanahu wa taala wax am nga xéewal bu rëy rëy rëy rëy boo xam ne li la dese mooy nga sàmm ko ci sukkur ak bàyyi mooy yàlla ndax yàlla day dàqe yàlla day folli dina dàqe dina folli ni borom société di yore société kii baaxatul ci société bi mu jëlee ko fa nañu moytu loolu ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy jéem suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa taala te ni muy dàqee nag nu ne la léeg-léeg sax nit ñi fekk ne dafa ne nit ki dafa avancé fekk dellu na ginnaaw wallahi ku daan toog ci jotaay yii dem ba am ci àdduna lu tax dootoo ci toogati moo xam daraja la moo xam alal la moo xam tur la moo xam lu mu mën a doon da ngaa perte waaye gañewuloo da ngaa dellu ginnaaw waaye avancé wuloo te dara du indi loolu lu dul bàkkaar nit dina dema dema dema dem ba daanaka dootul baaxati ci jotaay yi fu ne la fa gën a méritoo moom moo fay nekk wal masjidu baytu kulli taqi leent yàlla bi salaa sallam wax nee na jàkka nee na néegub képp koo xam ni ku am taqwa la taqwa haahuna comme li ko yonent bi salaa sallam wax fii la nekk ci gëm yàlla yëg ko di ko màggal bëgg ko moo gën a la lépp ragal ko tiit ko yaakaar ko loolu mooy jur nag athar bi ci biti mooy di def ndigal yi di bàyyi tere yi yeneen ñi amee boobu melokaan ñooñu ñoom la jàkk yi nekk seen néeg jàkk yi nekk seen néeg am na koo xam ne ni mu la jafee romb fu xat ga neexul wala climat ba neexul mën faa taxaw noonu la ko jafee toog ci jàkk cinq minutes ñii ñëw ci jàkk it yemuñu am ci koo xam ne dana góorgóorlu ba ñëw waaye buy ñëw daanaka day tardé te dara téyewu ko dara téyewu ko waaye ruux boobu nekk ci jàkk di am ñu muy xëcc moo nekkut ci moom wala tollul ci moom foofa bu jullee rek jóg bokk na ci ñi am mbooloo mi de waaye am na lu mu manqué lu bare bare bari su ko defee nit ki day góorgóorlu toujours lu baax muy xool cër ya fan la commencé muy bokk ca ñuy commencé xam fan la mujj muy bokk ca ñi ciy mujj loolu day tax moom du pare mukk mukk mukk mukk mukk ci yedd boppam du gis boppam mukk ndax nit la foo mu am yuy xëccoog moom cër yooyale waaye su ko gàttalee rek day yomb mu yéemu defe ni moo ca nekk waaye su xamee cër yi fi mu commencé cheikh abdul razaq al badr dafay nettali ne fa am benn xale bu mu seetlu ci jàkk ji nee na bu ñu jullee rek pëccët jóg dem na nee na benn bis mu gis ko ñu julli ba pare mu toog nekk ci baqiyaatu saalihaat yi toog daal ci li li li li li baax gannaaw julli nee na mu pare ndax am na lu mu ko jox lu mu déggoon ay athar ci asalafu saalix lii dimbali nit ki ci loolu mu laaj ko waaw tey yow kañ nga ñëw ci jàkk ji fàtte naa dafa ko ne nodd bi fii la ma fekk wala balaa ñoo nodd laa ñëw waaw yow ndax loolu sa habitude la mu ne tey la ma sa am bu ma daan ñëw kay damay fekk ràkk bu njëkk bi muy wax ne affaire boobu ci commencement bi moom mooy feeñ ci mujjantal bi loo gën a jël sa wàll rek ci commencement bi yàlla subhanahu wa taala di la gën a dimbale ci la ca des ba ci biir julli gi ndax bu fekkee day egg ba ci ginnaaw julli bi kon biir julli bi taxul ñuy wax ndax julli dañ koy préparé te yu mel nii ma ne nit ki bu ko amee wax ma la di toog di xaar diggante julleeg julli nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mooy ribaat tegale ko ñetti yoon wax tamit ne bokk na ci yàlla di yëkkatee daraja yi te di effacer bàkkaar yi mooy intidaaru salaati baada salaa julli ba noppi di xaar beneen julli naka nag sooy def ci diggante bi li am ngëneel bi ñu doon tudd sànq mooy di jàng ak di jàngale bokk na ci ngëneelu jotaay yi mooy malaaka yi dañu koy wër xadis ba wax ne am na ay malaaka yoo xam ne ñoom bokku ñoog ñiy bind jëf yi bokku ñoog ñooñu ñooñu dañuy yóbbu ñiy bind yóbbu ñoom li ñuy seet mooy majalisu dikr xadis bu siiw boobu suñ borom ne lan la ñu bëgg mu ne àjjana lu ñuy daw ñu ne safara ne dem leen ngeen wax leen ne maanaam la ñu bëgg may naa leen ko la ñuy daw di ko moytu musal naa leen ci ba ñu ne diw dey moom dafa jaar bokku fa bokku ci ne ulaayika al qawmu la yashqa bihim jalisuhum ñooñu ñi nga xam ne ku toog ak njoog ñoom sax doo torox ci toogandoo bi nga toog ak ñoom boole leen ko ci am na ci asalafu saalix ñu ko tekkee majalisul ilm am ñu ko tekkee majalisul xalaali wal xaraam mooy dafa mel ni dañu bëgg a wax ne moo ci gën a yey loolu moo ci gën a yey maanaam jotaayu xam-xam yi ak jotaay yi ñuy jàngee ne lii dafa dagan lii dafa xaraam su mbir mi demee noona ba nit ki war di ko wut war a góorgóorlu ci sax ci sàmm ko bokk na ci li ñuy manqué léeg-léeg mooy di def lu baax mais sàggan ci soññante ci te waaye def lu bon yi ñoom li tax seen yu bon gën a mën a gën a dem mooy ñoom dañuy oser pour di ci xëccante daanaka ku ne ci ñun li mu gën a ragalal boppam mbaa njabootam mooy àndandoo bu bon mooy ku koy yóbbu ci lu bon ndax su fekkee kër gi moom mi ngi góorgóorlu kay di yar moom ragalul tiitul ci boor boobu waaye li gën a bari mi ngi seet lu ko xëcc mooy kon li bon mi ngi xëccaate bokk na ci yenn nizaam yi nga xam ne di nga ko gis ci yenn mbooloo yi góorgóorlu ci lu baax loo xam ne ñiy góorgóorlu ci xam-xam ndax mbooloo yooyu ci waaraate waaraate nag dalay tooyal waaraate dalay tooyal pour nga mën a dem mais nag du la xamal nooy doxee mel ni ku mën a dawal rek sawar lool ci dawal waaye xamul code de la route boo moytul dana rajaxe lu bari dana dem de waaye day rajaxe lu bari jotaayu xam-xam yi nag moom moo lay xamal code de la route fii da ngaa war a taxaw fii da ngaa war a continuer fii da ngaa war a wàññi fii nag keneen moo am priorité yow amuloo priorité ñi koy jàng ñoo gënoon a yey ci di xëccaat ose ci bu baax a baax a baax ak suñu borom lu mu digle te mu foor rek noonu lay digle waale nit ñi di ci soññante kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna an ilmunkari wa tuminuuna billah waaw yéen nekk xeet wi gën ci ñu mës a génneel nit ñi da ngeen di digle lu baax di tere lu bon ni gëm yàlla di digle lu baax di tere lu bon kenn ci ñun ñàkkul xarit kenn ci ñun ñàkkul xame kenn ci ñun ñàkkul dëkkandoo suñu ko doon def njëriñ bi day gën a yaatu bu jàkk ji feesoon sax du tere loolu dind bi dindiwul tumuranke bi ñu tumuranke ndax tumuranke lislaam mi nga am ba tey bu ñu toog rek di ko jombat ne mooy lii ndax am na fu ñuy jàngale nga gis mu fees del te lislaam a ngi tumuranke mais problème mu occasion yiw la nit ñi di ci sabablu am ñu ci gàttañlu problème boobu la suñ borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci leel miskin leel miskin leel miskin ni mu fooree ba ñàkk kaa def bokk ci yi mën a dugal nit safara ndax waa safara bi ñu leen laajee maa salakakum fi saqar lu leen fi dugal qaalu lam naku min almusallin bokkuñu woon ci ñiy julli wa lam naku nutaimu almiskin bokkuñu woon ci ñiy leel miskin waaye aaya yi gën a bari aaya yi gën a bari wala yaxuddu ala taami almiskin wala taxaadduuna ala taami almiskin xuduuhu fa gulluuh ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين واجن جوخ تيرم تي تام مونم بو ëllëgé muy rëccu sunu borom wax na leen ko mbugal mbugal mu metti moo xam ne ay ceeni safara da ciy bokk ay ceen yu gudd yoo xam ne juróom ñaar fukki diraa lanu koy natt lan moo ko fa dugal ñaar yi la wax innahu kaana laa yuminu billahi alazim moom mi gëmutoon yàlla mu màgg mi wala yaxuddu ala taami miskin daawul soññe ca ñamu miskin daawul ci soññe kon yàlla subhanahu wa taala bu santaanee dara te loola baax day bëgg ñu cay soññe yedd nañu fële it ca suratul fajr wala taxudduuna wala wala taxaadduuna ala taamil miskin doo leen soññante seen biir ci ñamu miskin araayta alladi yukadibu biddin fa dalika alladi yaduu lyatim wala yaxuddu ala taamil miskin yooyu yépp soññe ci leel miskin ndax ñu war a góorgóorlu ci soññante dafa am yoo xam ne mu ngi gën a jekk ci jàngkat yi comme ñii nii ñuy def di ko jéem a àggale fu ne tey bu ustaas toogoon fu mu toog naan caméra leen ma dafay xaw nuru leneen dafay xaw nuru leneen bu jógoon nit ku mu romb naan leen dama am dar sa fële dama am dar sa fële ñëw leen di dajale ni déedéet yow mi nga xam ne yaay jàng am loo ñëw mos am looy jëriñu fexeel ku la yàlla mën loo nga indi ko ku la yàlla mën loo nga indi ko ndax yu mel nii dafa war a tas ndax leneen a ngi tas loola nag li mu lay jural mooy yool bu ëpp li nga mën a liggéey yow wala lu xaj ci sa doole bu ëpp lu xaj sax ci sa dund loolu it lu neex la ci li ñuy wut lu neex la ci li ñuy wut mu mënoon a yem ci ne yow da ngay liggéey ñu lay fay aywa sa waxtu nopp la sax bëgg fay dina tax nga jaay ko ak sa waxtu nelaw pour mën a yokk du dëgg nit ñaa ngi koy def ci àdduna waaye ñu ne nit ñee dañuy liggéey ñu lay fay nga dee nit ñooñu di liggéey ñu lay fay te bari na koo xam ne sori woon na xam-xam sori woon na njub sori woon na li gën a foor ci xam-xam mooy kennal yàlla bari na ci wallahi koo xam ne moroomam moo mus a jàpp loxoom rek yóbbu ko fenn mu déglu xutba mbaa mu déglu dars mu jóge fa soppeeku giiru dundam loolu lu mu ca liggéey lu mu ca def da nga cay am yool te du wàññi ci bosam dara moo tax dars yi war nañu fexe am ci yool boobu fexe am ci yool boobu bañ a toog di jàmbat rek ah nit ñi bu doon sabar fii tey ñu fees fi dell déedéet sabar dañ leen ciy woo dañ ciy woowante dañ ciy dimbalante aywa lii it nañ ci woowante nañ ci dimbalante ndax dinañ bokk kon ci ñuy tasaare lislaam danañu amit lu ñuy gën a dooleel ndax nit yàllaa ko bindee noonu la ko wéttali ci yoonam rek da koy gën a dooleel waaye dinañ ci am yool goo xam ne xajul ci sunu waxtu xajul ci sunu dund loolu lépp nag ixlaas lal ko ak laayante biir ak yéenante lu baax ak di ñaanalante yooye mooy yi làqu ci biir yi may wax yépp nag ci teew gee teewal ak keneen ak jàng yooyu yépp moom moo féete biti waaye li ci biir ñu góor góor lu góor góor lu ba seytaane bañ ci am yool bu ci jéemee dugg ñu xeex ak moom doo bàyyeeku doo daw bul foog ne jóg dem jaamu ji yàlla mu nar a baax mooy bi nga jógee seytaane newul ne présent taxaw di la indil yeneen yéene déedéet gars yi nee nañu talabna al ilma li gayrillah fa aba an yakuna illa lillah asalafu saalix baat bi lu siiw la ci ñoom ne ñun dañoo sàkku xam-xam seytaane ba cee dugal leneen lu dul yàlla ay nit lañu nee na waaye mu lànk moom xam-xam rek lu dul mu orienté ñu jëmale ci ñu ñu koy def ngir yàlla waaw noonu ngay def continuer rek naka noonu sufyaan thawri da daan wax maa caalajtu wala maa saaractu cheyan ashadda calaya min niyati innaha tataqallab nee na man musumaa bëreeg lu ëpp doole sama yéene ndax moom dafay wëlbatiku waaye day bëreeg moom di xeex ak moom ku mel ni sufyaan ndekete newul ne mbir mi dafa nekk routine nii ci moom rek mu defin déedéet da ngay xeex walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana ci biir ak ci biti da ngay mujaahada di xeex yéene yeeg coono yeeg jafe-jafe yeeg sedd beeg jamono xat-xat yeeg da nga ciy nekk di xeex rek di jëm ci yàlla sant yàlla moo lay leeralal yoon wi wan la ko teg la ci ñaanalante bi moom tamit sunna la boo xam ne dafa bokk ci sunnatu salafu saalih ridwanullahi alayhim bu ñu daan demee ñaanal leen seen waa ji yàgg nañ ko dégg ci ñoom ñaanal leen seen waa ji alimaamu shafii rahimahullahu taala nee na nangami at a ngi nii julliwuma benn julli lu dul rek ñaanal na alimaamu malik te loolu toxal nañ ko jëlee ko ci ñu bari ci ñoom sëgam sunu biir rek dafa war waxuma la ak nag sunu diggante ak ñi ñuy jàngal amul kenn ci ñun lu dul seytaan la dakk bil mirsaad di la wut rawatina ñi ñuy jàngal suñu diine ñooñu la gën a soxla ñooñu la gën a soxla moo tax ñu ñu war a ñeewante la ci ñoom di leen tiital ndax bu seytaane di wut keneen benn mi ngi koy wut fukk rawatina ci suñu jamono jii ñu nekk bu ñu sàggan rek ba ñu gis ne cheikh bi jàngaleetul wala cheikh bi wànc na yoon bi wala cheikh bi amatul jot rek ñu toog di ko jàmbat déedéet nañu def li gën a foor ci li ñu am mooy ñaan xamuloo sa ñaan booba fan lay jëlee jàngalekat bi yóbbu ko fan ci lu baax lan la koy baareel ci lu bon almahrumu man xurima duaa ki ñu xañ mooy ki nga xam ne dañ koo xañ ñaan muy jaanu boppam ak ñaanu mbokki jullitam ndax ñaanu mbokki jullit dafa foor ba yonent bi da ko daan ñaanalaate bal ñëw na ci xadis mu ngi ci silsilatul ahadis saxiixa ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan góor góorlul nit ci ñaan maanaam bu daan góor góorlul nit ci ñaan danaan jaala allahu alayka salaata qawmin abraar yaqumuuna alleyla wa yasuumuuna annahaar laa athamatin wala fujjaar kaana ida ijtahada li rajulin fi dducaa qaala jacala allahu calayka salaata qawmin abraar yaqumuuna alleyla wa yasuumuuna annahaar laa athamatin wala fujjaar xam nga lu mu ko doy ñaanal foofu même bu ñaanee ñaanu yéene lu koy ñaanal nit maanaam ñaan boo xam ne daf caa farlu lu mu koy ñaanal ñaanu nit ñu baax ñi la koy ñaanal yal na yàlla defal la ñaanu ay nit yu baax yoo xam ne dañuy jóg guddi di woor bëccëg duñu ay bàkkaarkat duñu ay saay-saay duñu ay bàkkaarkat duñu ay saay-saay aywa loolu léegi ñun ñu bokk ci su ma judee jógee guddi ñaanal ñoo xam ne xam naa leen ne seen yitte mooy defar ci kaw suuf si ti ji jàngal nit ñi seen diine te loolu day yaakaarloo bu baax ci ixlaas moo gën a garanti ci ixlaas yëkkati alal jox ko wala loo xam ne da nga koy wan mu di ko gis donte loolu lépp baax na waaye loola dafa gën a garanti ndax foofa yëgul kenn newu fa te yàlla mën naa lijjanti ci sa ñaan defar ci loo xam ne yoo xamuloo ko sax ci loolu la ñu doon tëjee di dellu di jéggalu yàlla subhanahu wa taala di leen jéggalu it di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak yërmandeem إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم نيجي سانت سن بروم سبحانه وتعالى دي گرم سونو ماج جو باخ جي ديكو سانت ci kaddu yu am solo yi nga xam ne man de jëriñu naa ci yaakaar naa ni it mbooloo mi it jëriñu nañ ci ndax ki nga xam ne dafa yàgg ci jàng ak jàngale yàgg ci leeral kàddug suñ borom subhanahu wa taala suñ borom subhanahu wa taala dana barkeel kàddoom ba léeg-léeg fi muy waxee sax day nekk niveau boo xam ne bu kawe la ku ko topp di ko jàngat di ko bàyyi xel di nga gis ne fu kawe lay waxee fu soriit lay waxee may jéggalu bu baax a baax ci bàyyi gi ma ko bàyyi ci seen kanam te présenté wu ma ko doonte jubluwaay la ndax jàpp naa ni ñi fi nekk su ko ñëpp xamul it ñu bari ci ñoom xam nañ ko mu doon koo xam ne ku yàgg ci yoon wi ñu nekk nii la ñun rekk ba ñuy toll ci jàng dañ doon jëriñu bu baax a baax a baax ci ay njàngaleem ci loo xam ne sax amaana moom yëgu ko ndax bi ñuy nekk Louga lañ xamante loo nag xamante woo nag koo xam ne mbokk jegeñaaleem la Abdallah Jaxate ak taajir nekk mbokk boo xam ne suñu wëllëre la lu bare bari xamoon nañ ko ci moom te boo fekk gisuñu ko bi muy nekk ñaari tali loolu yàgg la di jiite fii ci ginnaaw Colobane yaakaar naa ci côté pont bi loolu yàgg la maa ngi fàttaliku am na benn xutba ci ay xutbaam xutba bu ñu taqoo woon ci di ko déglu la muy masiixu dajjaal xutba boobu xutba bu bu ñu doon dimbandikoo la di ko déglu di ko dégluwaat kon ku mel noonu loolu suñ borom subhanahu wa taala moo ko defal su suñ ko gisee ci suñ kanam te du occasion buy présenté wu saa su nekk ndax man ñun bi ñu fiy jàngaleeg léegi lii mi ngi soog a am ku mel noonu kon soo ko gisee jëriñu ci kanamam dafay jaadu mi ngi nekk fi mu ne nii Thiès yor fab daara bu rëy rëy suñ ko gisee ci jotaay bu mel nii wax dëgg suñuy fit sax du ñeme di fàttalanteeg yéen ci kanamam te fekk ñu war a mën a jëriñoo ci occasion bi ñu yàlla defal lenn ci ay kàddoom loolu kon moom mooy sababu wax dëgg fa yàlla ñu bàyyi ko ci seen kanam te wax dëgg fa yàlla jëriñ na bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla man mi toog fii rek am na yu bari yoo xam ne moom man toog naa fii ak yéen jaar ci ak yéen waaye dégg-dégg gi ma ci am nii awma ko ci woon kon jëriñu nañu bu baax a baax a baax ñu ngi koy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yàlla yàlla guddal fanam. yàlla yokk wéram yàlla yàlla bëril ay kemam yàlla barkeel ay yëngatoom ñu ngi nuyu bu baax a baax mbokki Cees bu baax a baax ñu ngi nuyu bu baax mbokki Cees am na magam ju jigéen ju baax ñu wax Zeynab yàgg nañoo teral fële ca HLM ñi ngi ñi ngi lay ñi ngi lay yóbbante nuyoo ci moom ñi ngi lay laaj jàmm yaramam yaakaar naa fan yi xawoon na tawat yal na ko yàlla saafara fan yi bu yàggul rek Bachir ñu ngi déggante ci whatsapp bi moom it kon eh, njaboot gu barke lañ gu bëgg diine gu xam ne ci loolu lañ leen xam na yàlla sàmm leen doon leen tawfiq am nañu mbégte bu baax a baax a baax te ñi ngi ñaanit nag su fekkee ne tànk yi bari na fi ñu xool sax nu ñuy def ba mbokk yi di di mën a jariñu saa yu ngeen fi ñëwee ndax eh, loolu du ngeen ko mën a bañ ndax ci ngeen mës a nekk te nu mu gën a yaatoo rek mu gën a baax ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yàlla defal tawfiq allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam jazakumullahu khairan wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV Fafa TV